Bonjour amis fidèles internautes Sénégal 7 ravi de nous retrouver dans votre nouveau numéro entretien spécial comme ni ñu koy faral di defee saa su nekk su évolution actualité bi amee dañuy xooli benn profil boo xamante ni dina adéquat par rapport ak contexte bi waaye aussi euh, sekk ak moom waxtaan bu ama am solo nga xamante ni nii euh, yéen internautes yi souvent yéen a koy euh, demandé yaakaar naa ki ñu invité tey c'était une demande nationale ça fait presque un bout de temps kenn gisatu ko woon kenn déggatu ko woon donc ñu bëri di ko wër ku nekk naan fu mu nekk lu tax génnatul donc tey Sénégal set dem na wari ko indil leen ko tegal leen ko ci plateau am ngeen mus fas yéene nag jàkkaarloog moom seetaan ko sekk ak moom waxtaan bu ama am solo muy président Alpha Thiam je crois que su ma waxee Alpha Thiam nag kenn dootu ko présenter lii sénégalais euh, mettre na en exergue son passage lors du des élections présidentielles 2024 euh, depuis lors nag kenn déggatu ko kenn gisatu ko mu wax ainsi de suite tey nag on a eu l'occasion de l'inviter mu nekk suñu invité du jour ñu koy nuyu di ko jox wàcc waayam bu baax baax président Alpha maa ngi lay nuyu di di la jox sa wàccu waaye boo pare nag sénégal yi laaj la foo nekkoon. <laughs> jërëjëf euh, madame euh, Lalla Rassoul Wele. c'est un plaisir d'être ici à Sénégal 7 devant vous. Euh, plaisir renouvelé. Euh, kenn waruma maa ngi fi nag c'est pas fan laa nekkoon nous sommes tous ici si euh, au Sénégal en train de travailler au Sénégal ak suñuy activité euh, mais avant may gën a euh, sori si wax bi baal ma rek ma ma nuyu téléspectateurs yi. effectivement ma ziar leen ma nuyu leen yow tamit. comme ni mhm. nuyoo ñi nga xamee ne que ñu ngi ñuy déglu ñu ñuy seetaan ñëpp ci Sénégal ak si diaspora bi ma am mbégte loolu teew fii. Euh, ma nuyu tamit euh, te massaw suñu mbokk yi nga xamee ne que ne ñu ngi si suñu région bi Tambacounda foofu noonu. Mhm. Euh, yëpp waa Bakel waa Kédougou ba ci waa Matam ba Saint-Louis ma massawu leen ci tiis bi nga xamee ne que ne moo leen dal métti na trop. Mhm. donc vraiment j'aimerais leur adresser ma solidarité totale et ma compassion. Mhm. beneen bi nag ma tontu ci li nga ci y un temps pertinent il faut se rappeler que. Sénégal dafa nekkoon ci guddi yu lëndëm moo taxoon ñu demoon ci présidentielle. Mhm. à un moment donné on s'était indigné et au-delà de rester dans les salons dans les bureaux de parler ñu ne woon baax na ñu matérialiser suñu engagement jóg taxaw ne Sénégal ñu ko bàyyi. Mhm. mu sombre looloo taxoon foog naa ñu duggoon ci politique bi un peu plus fësti mais bi nga xamee ne que dem nañu ba jële fi Macky Sall ak li nga xam ne moom la bëggoon def il fallait ñun ñëpp ñu delluwaat ci suñu activité professionnelle euh, business yeeg entreprise yi et mm-hmm. euh, de sorte que ñu may le temps aux nouvelles autorités de travailler d'avancer de faire le diagnostic parce que mm-hmm. six mois gàtt na mm-hmm. sept mois rek la c'est à peine le temps de faire les diagnostics nécessaires pour la bonne marche du pays. mooy état des lieux yi. faire l'état des lieux. Mhm. dans les ministères dans les communes dans les agences les différentes directions puis après de faire un travail prospectif. Mm -hmm. un mhm. diagnostic prospectif boo xamee ne que ne mooy permettre ñu ajuster le projet. xool nuñ koy matérialiser à travers un document boo xamee ne que c'est de référence mooy le document qu'on a présenté au Sénégal comme étant le plan Sénégal 2050 donc euh, véritablement c'était ce temps-là qu'il fallait respecter mhm. mais euh, temps boobu c'était le temps de l'élection maintenant on est revenu sur un deuxième temps politique fort mooy le temps des élections législatives donc il faut que ñu génn pour ne li ñu joxoon présidentielle bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye président li ñu ko joxoon muy yi dañ ko war a confirmer voire dépasser ko avec une majorité écrasante à l'Assemblée nationale pour qu'au soir du ñu mën ne liggéey bi commencé na pour ñu mën a mettre en œuvre le projet bi nga xamee ne ñu ngi koy wax depuis d'accord alors lu tax ma poser question boobu mooy. Euh, dañu gis ne depuis bi présidentielle yi jeexee y la coalition Diomaye président. donc ñu toog benn moment euh, kenn gisu ci. ci soit yenn rencontre yi rek lañ la doon gis. mais ma masuñu la gis nga wax si wala nga dem ci plateau yi peut-être loolu moo marqué woon absence boobu euh, sénégalais yi bàyyi ci xel de trop. beneen bi mooy gis nañu bi affaire yi jàllee mm. li xew yëpp ci sept mois yi mm. six mois yi ku ci mm. nekk am nga appréciation boo xam ne mm-hmm. yaa ngi ko doon joxe par rapport ak les nouvelles autorités mm-hmm. am na fi aussi une nouvelle opposition boo xam ne mm-hmm. commencé na fi juddu donc ci diggante bu gàtt boobu noonu bëggoon nañu xam sa appréciation par rapport ak loolu absolument euh, alors sur ce temps-là écoulé euh, c'était un temps de travail am na liggéey bu mucc ay boo xamee ne ne ñu ngi ko doon def au sein de la coalition Diomaye président donc il faut saluer euh, ce travail remarquable euh, permettez-moi mu nuyu euh, suñu membre conférence des leaders yëpp mm-hmm. de Diomaye président euh, à sa tête la présidente Aïda Mbodj mm-hmm. qui fait un travail remarquable qui je le rappelle qui cumule des fonctions tey jii nii de management de la DER avec des déplacements sur tout le territoire national man damay xamul sax fan la jëlee énergie <laughs> boobu noonu. mais mais vraiment dañ koy euh, dañ koy saluer et puis euh, de manager aussi des personnalités souvent pas commodes. Mhm. Euh, mais euh, avoir une coalition avec plus de deux cent soixante et quelques presque mhm. pratiquement léegi parce que coalition bi mu ngi dund dafay respirer te ñu ngi saluer te ñu ngi gën tàllal loxo mhm. l'ensemble des identités remarquables du Sénégal pour leur dire venez rejoindre la coalition Diomaye Président venez rejoindre le PASTEF venez rejoindre les différentes entités yi nga xam ne ñoo nekk ci biir donc il a ce travail de fond bi nga xamee ne que ne président au lendemain des présidentielles naa ngeen jox ma une nouvelle des mécaniques de gouvernance de cette coalition bëgg naa ngeen jox ma des éléments sur le naming sur tour bi parce que bële Diomaye président c'était pour la présidentielle mm-hmm. et cetera liggéey boobu jeexagul moo tax bi ñu si tollee quand le premier ministre chef de parti président Ousmane Sonko nous a reçu euh, bi ñu waxtaanee mu ne may leen ma ñu dem ak récépissé Pastef Mm-hmm. récépissé Pastef boobu noonu ñëpp xam nañ ko c'est pour sécuriser le vote à l'Assemblée nationale c'est pour sécuriser encore une fois le groupe parlementaire de la coalition ah yow gise ngeen ci ah législative oui bien sûr bu baax a baax y a tout ce travail qui a été fait moo tax il faut saluer ce travail bi nga xamee ni que ne y a un véritable ancrage euh, tey jii nii de tous les patriotes de tous les souverainistes de tous ceux qui veulent tey jii nii répondre à l'espoir au message fort qui a été lancé par Ousmane Sonko par Diomaye par l'ensemble des patriotes du Sénégal tous ceux qui veulent les accompagner sont en train de venir et de faire ce travail de fond voilà donc liggéey boobu ñu ngi nekk di si def te ñu ngi si contribuer beneen bi tamit mooy nous avons des rencontres souvent bi ci mujj mooy euh, euh, le meeting euh, qui a été fait euh, le méga meeting du mois à Dakar Arena non dinaa euh, après meeting où, après dinaa wax la présentation du nouveau référentiel et cetera xam ne ñu ngi si bi macha allah. d' accord et puis bon nous rencontrons aussi nos sympathisants les forces nouvelles ñi nga xam ne nuyu ma leen maa ngi nuyu mbokk force nouvelle dimbali sa réew yëpp. d' accord waa FNDR commencer par le président jusqu'à waa Malem Odar nuyu waa Tamba nuyu waa Saint-Louis euh, suñu mbokk Ziguinchor yi ñoom ñëpp voilà. d' accord ba tey ci législative yi. Euh, ngeen fas yéene dem ci bannière coalition Pastef. loolu ñu bëri doon wax ne est ce que du doon risque même su fekkente mais tey euh, dañu gis ne euh, élection yi pour campagne bi démarrer li ci des bareetul. Mhm. il y a eu des dérapages wala bokk ay arrestation mhm. mais bi ci gën a fës jamono ji bokk na ci li xew Tamba. muy Bougane mu bokk ci coalition VAR. Mhm. ñu gis ne yow gis nga ko image comme ni ko ñun ñëpp gisee. Mhm. actuellement placé nañu ko sous mandat de dépôt. Mhm. te ñu ngi préparer ay élections législatives te moom il est investi sur la liste titulaire. Mhm. mu nekk onzième position. donc tey ñu bëri jàpp nañ ne loolu mënees naa ñàkk pour ñu mun ko bàyyi mu dem campagne aussi. merci euh, madame euh, man li ma yaakaar mooy tey Sénégal toll na foo xam ne. c'est à la croisée des chemins fii la ñuy jógee defaru ba faw wala fii la ñuy jógee xëy na ñun ñëpp ñu bàyyi politique wala dootuñu gëmati politicien pourquoi euh, Bougane dama jàpp ne que ne son combat essentiel c'était un combat de souveraineté maak moom ñu bokkoon ko mhm. en tant que candidat spolié man moom les Mimi Touré les Abdourahmane Diouf etc mhm. professeur Mary Teuw Niane ñun ñëpp qui étions Euh, effectivement au au soir ben la coalition des spoliés on était tout le temps tous les soirs pratiquement entre euh, le conseil constitutionnel et des réunions qu'on faisait souvent chez Bougane mhm. ou qu'on faisait dans xx endroits du Sénégal ici donc ñu bokkoon un combat pour dire nous voulons débarrasser le Sénégal tey d'un système mhm. lu leer la woon mooy Sénégal nguur waratu fi nekk sàcc politicien waratu fi mën a nekk milliardaire Sénégal waratuñu jiital gabegie waratuñu jiital concussion waratu fu amati lu mel ni ay accaparement de biens waratuñu euh, ne nguur tey présidence war na mën a commander ay armes waratuñu toog ne dañuy defar ay contrats yoo xamee ne que boo ko defaree c'est des contrats tellement déséquilibrés que euh, Sénégal du ci am dara du dul ay 10 pour cent voire lu gën a néew mam ci yenn yi ça nous a tellement révolté du Sénégal boobu la ñu bëggoon donc ñun ñëpp dañu àndoon ñun ñi doon xeex loolu ñenn ñi dañuy beddeeku ne dañuy tourner xeex nguur goo xam ne six mois sax defagu ko damay jaaxle quelque part moo tax man li ma leen di ñaan mooy tey nañu xool ce combat de génération sénégal yi li ñu envoyé comme message c'est nous voulons redéfinir la politique au Sénégal mmh. nous voulons réarmer la façon de faire la politique donc il y a un réarmement politique qui est en train de se faire au Sénégal et ça fait que six mois seulement que le président euh, temps féewaloo xajagu fi temps fàtte xajagu fi kenn mënul fàtte lii yëpp fi xewoon ak gouvernement bi ak système bi mënuñu ko fàtte loolu tax élection yi c'est extrêmement important fàtte xaju fi li fi Macky defoon tey dañu war a dem assemblée bokkandoo ànd pour ne Sénégal bu ñu ko waree diriger ce n'est pas comme ça que ça va se du loolu mooy seen aspiration premièrement deuxième aspiration bi seen le Sénégal c'est 75 pour cent de la population sont des jeunes de moins de trente ans trente cinq ans waaw population boobu dafa bëggoon gis un rajeunissement de la classe politique donc buggaan bokkoon ci espoir yooyu comme tey jii nii ñoom Akile euh, ñoom Hamidou Thiaw. Euh, mm-hmm. ñoom Abdourahmane Diouf et cetera renouvellement boobu c'est en train de s'opérer mais c'était pas pour les voir dispersés ak ñuy dóorante c'est d'avoir une dream team comme su fekkee noonu dañuy def benn équipe nationale du Sénégal. Mm-hmm. en disant que ne ñun ñëpp nous wala les plus engagés d'entre nekk du même bord. Mhm. jàppale une locomotive locomotive bi dañ nangu ne que ne c'est le Pastef ndaxte ñoo gagné. Mhm. ñu jàppale leen àndandoo liggéey ngir yàlla pour Sénégal développé loolu mooy li nga xamee ne que man mooy sama gis-gis ci politique bi donc euh, c'est pas pour ñu nekk des confrontations sur des hommes mais on se bat pour la mise en œuvre d'un programme boo xamee ne que xam nañ ne que ne véritablement c'est un programme de référence pour le développement du Sénégal ñun nangu ko liggéey ci ci loolu nag mais am mbégte. parce que wax nga ko mooy la coalition est en train de s'ouvrir et des identités remarquables sont en train de venir ku mel ni ma saluer ko euh, Malick Gakou c'est notre grand frère ñoo bokk suñu banlieue ñoo bokk suñu géejawaay et puis gis nañ dem aussi euh, le euh, cas de Déthié Fall. gis nañ ne aussi moom dafa dafa fas yéene dellu si mais foofu aussi y a problématique parce que Déthié ci coalition Sàmm sa kàddu la bokkoon. amul problème laa la man pour man amul problème ils sont les bienvenus nga ñoom dañ dem ci coalition moi je les appelle bu ñu demee assemblée nationale. ñu rejoindre tey jii nii groupe parlementaire PASTEF xam nga lu tax. Hmm. on a besoin d'une majorité écrasante à l'Assemblée pour pouvoir mettre en œuvre les mesures yi nga xamee ne que Sénégal daf ko soxla te Sénégal dafa soxla mesure yooyu noonu c'est c'est c'est c'est une priorité nationale. on ne peut pas passer à côté vous imaginez ñu ne yeewu nañu assemblée yóbbuwaat nañ fa Macky Sall mais Macky Sall moom lañ fi défenestré y a même pas 4 mois xaw ma y a même pas 6 mois et pour ne dañ ko fi bëgg a andiwaat wala dañ fi bëgg a euh, ay doomu Macky Sall ay Amadou Ba et cetera wala ñeneen ak ñeneen ce n'est pas ça le sens de l'histoire mooy le Sénégal doit aller tey jii nii sur une direction de développement sur une idée force mooy on doit retrouver souveraineté nationale mais mais xam nga opposition aussi mënul ñàkk ci dëkk. bien sûr il en faut donc te tey euh, ñu bëri ñu bëri ñu ngi naan malgré que. am na ñu ne d'accord ci acte bi Bougane posé mais quand même euh, fi mbir mi yegg jarul woon mu fa yegg. waaw xam nga euh, li ñuy xeex daf ci bokk des réformes sur la justice daf ci bokk sur des éléments yoo xam ne probants. de séparation des pouvoirs. donc séparation des dafa laaj ñu bàyyi justice mu def liggéeyam liggéey boobu nag tey fu mu ci toll mooy lan. Mhm. Euh, je pense que euh, on nous a dit euh, le trente l'affaire sera jugée n'est-ce pas. Mhm. donc attendons le 30 et on verra maintenant lu ñu mënul rafetlu rek tey jii nii te nga xamee ne que ñun ñëpp dañ ci xeex. Mhm. mooy nous nous sommes. Euh, euh, dans un environnement boo xamee ni que ni il est impératif de réaffirmer l'autorité de l'État. euh, le pays trop longtemps a été sur une crise d'autorité tey Sénégal dafa laaj de manière extrêmement rigoureuse ñu réaffirmer que force restera à la loi ñu réaffirmer l'état de droit un pays on respecte les autorités on respecte les forces de défense et de sécurité boo jëlee tey le code de la route sur son article 7 li mu wax dafa leer refus d'obtempérer mënuñu ko tolérer un policier qui porte les insignes ki porte les ses identités euh, visibles flagrantes mu arrêté la taxawal ñu ne la yoon dañ koy xalil le président mais le président ñun sénégale yëpp ñoo boole àndandoo jox ko des prérogatives et une puissance publique. tey muy sëriñ muy taalibe ku mënti doon boo nekkee ci taalibe ñu ne président mu ngi ñëw dañ lay ne may ko mu jàll. dañuy xàll yoon bi waaw bu dee bugaan loolu lañ ko ñaan naka may mu jàll loolu compliqué wul. maintenant nag léegi nag mën nañ comprendre ne que comme booy ni ñu koy waxee je vais pas dire le terme mais ku fi bëgg sonko sonkolu wala ku fi bëgg def loo xamee ne du noonu euh, c' euh, est ba insulte sax jug na ci te yooyu yëpp c'est des scènes yoo xam ne loolu rafetul man rafetlu ma ko on peut faire la politique de manière élégante on peut faire la la politique autrement en plus encore une fois damay ne ñun ñëpp on fait extrêmement attention sur les éléments de langage parce que ñoo bokk génération mhm. ñoo bokk ay xeex dañuy gisee feneen ak feneen donc dañuy war a yeddante joxante xalaat yu baax mhm. nañu liggéey pour le Sénégal moo ñu tax a jóg nous mhm. voulons le Sénégal nous tous ensemble te on peut d' accord alors euh, comme ni nga ko waxee ah euh, ci biir dañuy def ci ci point législatif yi bu ko épuisé ñu ñëw ci référentiel bi mm. tey gis nañu euh, beneen mbir muy ah, coalition Jàmm ak Njariñ ki ko jiite di Amadou Ba mm-hmm. mu briser le silence pendant tout ce temps kenn déggu ko dem mu génn def discours bu am solo mm-hmm. mais ci biir discours bi am na ci baat ak tontu ci diggante ak l'actuel premier ministre en même temps chef de parti du mhm. parti PASTEF mhm. mu jiite tête de liste coalition PASTEF ci biir wax président ko ne ko pare naa pour invité le débat public mhm. bu ko defee ñu mën a édifier les Sénégalais mu mel ni euh, moom dafa def benn signal Mm-hmm. comme quoi que bu moom la ko considéré comme un opposant boo xam ne moom la war a opposé wul mm-hmm. c'est comme si que moom mooy tànn ki koy opposé boobu lecture boobu boobu lecture boobu nga am voilà c'est euh, pas boo xam ne ngay partagé Euh, non mais moi je respecte ta lecture maintenant man la lecture que j'en ai aujourd'hui elle est tout mm-hmm. autre hein euh, j'évite de personne personnifier euh, le débat politique et jot na aussi parce que quand on parle de rupture dans ce pays-là ñun ñoo war a boobu qualitativement le débat doit être rehaussé mm-hmm. mooy on va parler des programmes on va parler des projets on va parler des propositions on va parler de la réalité de la transparence des chiffres mhm. si loolu la ñuy invité Sénégalais yi te Sénégalais yi c'est là où ils nous attendent mhm. pas dire que euh, Amadou Ba nee na lii Sonko tontu na ko lii keneen tontu na ko non ce qui est important c'est ne pas être diverti avoir un projet le matérialiser l'opérationnaliser et parler sur les résultats léegi non mais débat d'idées bi non je viens j'en viens je salue la proposition du président Ousmane Sonko président Pastef Euh, premier ministre euh, tey bu ñu xoolee dëgg qu'est-ce qu'il demande andi na beneen innovation bu bees encore une fois sur la scène politique sénégalaise te tout le monde appelle ça de ses voeux il est temps qu'on accepte de pousser un peu plus haut le curseur de maturité du dialogue politique mm-hmm. mooy waratul nekk ay dóorante mais dañu war a mën a toog affronter wu sur des débats contradictoires mmh. des débats libres des débats yoo xamee ne que ne les gens viennent avec leurs arguments viennent avec leurs projets mm-hmm. viennent avec leurs des débats intellectuels des débats profonds yoo xamee ne ne ça se base sur la réalité des chiffres du pays mm-hmm. parce que ce dont nous parlons il s'agit du Sénégal mm-hmm. et du développement du Sénégal donc c'est extrêmement important qu'il y ait cette émulation là pouvoir opposition qu'il y ait cette émulation là à l'intérieur même des coalitions pour que le meilleur en sort au bénéfice du Sénégal mm-hmm. donc loolu c'est important beneen bi nag mooy yaa ngi wax moom ay opposant am mais tey ñun la coalition Diomaye le PASTEF euh, c'est c'est pas une question est-ce qu'on a une opposition notre opposition c'est on a un plan à dérouler dans cinq ans on a rendez-vous avec les Sénégalais mhm. et il faut être focus sur ça et dans cinq ans l'opposition pour le PASTEF pour la coalition c'est les résultats que nous aurons sur la vision 2050 on a un plan quinquennal à dérouler ce plan quinquennal là dafa war a comporter des résultats probants des ERQ des éléments de preuve yoo xam ne que c'est tangible Sénégalais bu ñu ko gisee ne lii la ñu waxoon def nañu lu ñu waxoon gàcce ngalaama kaa leen jàppale waat pour beneen mandat ñu mën a continuer dérouler le projet wax bi foofu la mais c'est pas de s'occuper de l'opposition elle va s'opposer ils ont le ministère de la parole man nag je heureux tey vu ko wax nga turam euh, Amadou Ba oui il était temps qu'il sorte enfin Amadou Ba mu ngi mel ni Alpha Thiam moom noonu dafa xawoon euh, <laughs> li nga wax dafa xawoon réer des radars quoi mais bon euh, moom amul droit réer des radars. <laughs> voilà euh, des des élections présidentielles il était sorti deuxième quand même. Mm-hmm. et puis c'est quelqu'un koo xam ne il fait de la politique. Euh, par bataille interposée par mm-hmm. presse interposée yomb na nga am say télé am se am say loolu lu Sénégal yëpp xalaat la. mais lu Sénégal yëpp xam ne ñëpp xam nañ ne que ne euh, c'est facile d'avoir des mercenaires euh, journalistes pour vous Merci chaque matin et cetera et permettez-moi de le dire comme ça parce que euh, à force ce qu'on voit à la sur la presse sur la une sur les radios sur les revues de presse c'est pas ce que les Sénégalais euh, prennent pour argent comptant heureusement d'ailleurs Et il faut magnifier ce peuple mature qui sait le distinguo et qui une décision sage lors de l'élection en élisant le président Bassirou Diomaye Faye le 24 mars avec 54%. C'est du jamais vu, c'est inédit, il faut insister, c'est l'opposition qui gagne largement au premier tour. C'est un là c'est c'est les acteurs qui l'ont fait, ces acteurs-là, c'est qui? C'est la jeunesse sénégalaise. Donc ñu wax jeunesse boobu encore une fois gàcce ngalaama euh, ñu ñu féliciter leen encourager leen ba pare ne leen eux qui ont été les acteurs de la victoire doivent être les acteurs de la transformation du pays que ça se passera ici pour les cinq ans pour les dix ans jusqu'en 2050 seen développement la seen seen seen seen seen place la seen politique la c'est leur Sénégal à eux li ñuy xeex yëpp ñoom la ñuy gunge te pour ñoom la. alors ñu gis euh, président Ousmane Sonko mu woote giga meeting fële ca Dakar Arena. Euh, récolte fa récolté fa lu tolloog 500 millions. Mm-hmm. Euh, te. si on fait un petit rappel euh, bi mu nekkee ci opposition bi euh, defoon euh, levée de fonds. am mhm. trois cent 333 millions. oui donc une fois au pouvoir aussi ñu gis mu defaat la même chose te li xew arena yëpp gis nañ ko parce que défilé woon. mais mhm. tey bu ñu gisee ay nit génn di ko critiquer comme quoi que tey. loolu mu def mhm. xajoon na feneen ainsi de suite on a des urgences donc loolu aussi bëggoon naa nga apporter ci réponse par rapport ak loolu parce que peut-être ñenn ñi ñuy gis mooy Euh, Ousmane Sonko il essaye de montrer une autre face de la politique du Sénégal. Mhm. mais ku ci nekk am nga ci apréciation appréciation. absolument absolument euh, cette interpellation euh, tey jii nii euh, elle elle doit nous poser des questions. c'est des patriotes qui ont répondu. c'est des souverainistes qui ont répondu. ay nit yu bëgg seen réew ñoo répondre ay sénégalais yu bëggoon taseeg seen leader te mu. yàgg jotuñu woon am jotaay bu mel noonu ak moom parce que dañ ko ko empêché woon ba ci présidentielle yi amatul woon ce genre de rendez-vous. Mhm. donc euh, rendez-vous bi rendez-vous ñu nammante la woon. ñu bëggoon gise gisee loolu. donc il faut le il faut il faut le prendre il faut le prendre comme comme comme comme tel. il faut également avoir une lecture très poussée dessus. Mhm. que en très peu de temps on arrive à dégager 500 millions de francs CFA au Sénégal. sur une contribution volontaire forcé wuñu kenn et lui son challenge nee na je serais pas étonné que d'ici dimanche qu'on arrive à un milliard te j'y crois on va y arriver parce que y a un élan patriotique et souverainiste dans ce pays boo seetluwee am na ñu bëri ñoo xamee ne que ne euh, tey jii nii le président Ousmane Sonko euh, le PASTEF euh, les leaders de la coalition on ne les entendait pas dans les plateaux mmh. dans yenn plateau d'envergure yu bokk ils étaient plus sur les RS là ils sont un peu plus médiatisés les gens ont le temps d'écouter calmement le discours mm -hmm. ce plus li ñu leen doon wax tam nañ leen fi dëmm tam nañ leen fi euh, terroriste tam nañ leen lu ne lu ñu leen bàyyiwul rek la ñu mënul wax xëy na mhm. mais tey jii nii sénégalais yi yeewu nañu te déglu nañ leen am na ñu bëri ñoo xam ne boo seetloo ñu ngi adhéré ñu ngi à cette nouvelle vision là. Mhm. ñu ngi adhéré au programme. ils y croient et ils viennent en masse parce qu'ils ont le temps de se faire ñi nga xam ne daawuñu leen woon dégg. ñu ngi leen di déglu ñenn yi nga xam ne daaw ñu woon déggu tey euh, le président Bassirou Diomaye mais ils sont charmés da leen di dégg ñu lay wax yar bi teggin bi dal bi classe bi wala sérénité bi muy dégager et cetera et cetera et cetera les gens ont le temps de les découvrir de xam la réalité si ce qui est différent de li nga xamee ne que la leen benn presse doon jaay wala la leen pouvoir à l'époque doon jaay tey gis nañ ko léegi nag man je suis interpellé sur cette capacité à lever des fonds mmh. ça nous rejoint et ça nous conforte dans l'idée que il nous faut une loi boo xamee ne que ne dafa war a régler ji la question du financement des partis politiques parce que euh, du ku nekk moo mën lii ñenn ñi mën nga laajte fan lañ leen di financer da ngay jëkki jékki campagne jot nga gis pléthore de candidats wala ay partis yu bees créé wu wala candidats yoo xam ne da ngay dem te xamoon ñan ñoo nekk seen gannaaw le Sénégal pour sa sécurité pour son lendemain doit mériter des protections yoo xamee ne que jusque dans ce cas dañu war a xool naka la ñuy légiférer ak naka la ñuy doxee ba nga xamee ne que ne ñëpp dinañ ci gis seen bopp mais li daf ñuy wan aussi que nous avons des leviers insoupçonnés en termes de euh, mobilisation des ressources pour le développement de notre pays xam nga y a des euh, leviers innovants yoo xamee ne que ne euh, le projet même en parle euh, quand tu entends parler des euh, green des patriotes bonds mais patriotes bonds yi c'est ni plus ni moins que cela c'est de dire bëgg nañu financer benn projet ndax sénégalais yi mën nañ ci def seen xaalis et attention ça veut dire que il faut même aller au-delà avec une culture boursière ne entreprise bi soxla nañ ko recapitaliser ubbi nañu ko te dencal nañu une partie euh, au privé national dencal nañu une partie aux, aux aux actionnaires sénégalais qui sont susceptibles de prendre des actions dans la Sénélec dans la Sonatel dans d'autres sociétés nationales wala yoo xam ne que dañ ko nar a créer ji pour le développement du pays et on fera appel à cela c'est extrêmement innovant lii daf ñuy conforter euh, dans ce sens-là que le projet déjà va être mis en œuvre sera réussi parce que les Sénégalais sont à accompagner même effectivement en tout cas euh, euh, ñu bëri ñu ñu ngi naan euh, lancé na leen défi parce que nee na ku mën na def alors on verra ba xam opposition bi ñoom aussi <laughs> dinañu wootee. ah oui ku mën na def arena quinze mille quatorze mille places plus des places assises donc à tout casser dix sept mille vingt mille kenn. c'est pas n'importe qui qui peut remplir ça euh, challenge la financièrement faire une un fundraising comme ça puis faire des levées de fonds à cette hauteur là du ñëpp ñoo ko mën lii ça montre enco fois fi ñu nattoon ne que ne on voulait une majorité qualifiée mais on aura une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale et c'est à souhaiter c'est à souhaiter pour le meilleur du Sénégal. d'accord alors ñu gis euh, référentiel 2050 ñu lancé ko. Mhm. souvent dañuy gis ne alternance bu amee dañuy xaar référentiel des valeurs bi tey ñoom ñu andi référentiel 2050. Mhm. comme modèle économique par rapport ak seen vision fii ak. Euh, euh, euh, vingt cinq ans. Mhm. tey ñu bëri di question bi ñuy posé wu mooy d' abord soo xoolee fond bi ak forme bi est ce que répondre na ak le modèle prototype bi nga xamante ne moom la Sénégal soxla. Mhm. vis à de son manque de développement. Mhm. secteur. boo mhm. jël mhm. dafa sooxe mhm. muy ressources naturelles yi ainsi de suite parce que Sénégal en fait ñu bëri ñu ngi posé wu la question comme quoi que lu tax taux de pauvreté bi di yéeg mais tey boo amee ay ressources naturelles di ko exporter brut doo transformer loolu day gën a yokk sa taux de pauvreté Absolument. donc tey est que jàpp nga ne euh, model bi euh, refaire reflété na ak li sénégalais di xaar pour le développement de ce pays merci merci beaucoup euh, si si si sa si sa question bi am na ay de réponse même yoo xamee ne que ne euh, joxe nga ko euh, je salue euh, cet esprit brillant wax nga ci wàllu pauvreté tey boo xoolee deux Sénégalais euh, sur cinq vivent en dessous mhm. du seuil de pauvreté ça nous alarme. Mhm. c'est inquiétant. Mhm. loolu yow en tant que njiit boo defee constat ba pare il faut que nga taxaw seetlu ak ne ci kanam. lan mooy tontu yi nga xamee ne moom laa war a mën a andi comme tontu yu pertinent euh, projet bi dafa am yenn indicateurs yoo xam ne sénégalais bu ne war na ko mën téye bu dee ñett ak ñeent ak juróom rek war na ko mën a xam le projet va être vulgarisé lors de législatives a commencé à vulgariser mais il faudra le vulgariser pratiquement di si euh, tout ce premier mandat mmh. pourquoi parce que il donne du sens dafay wone lu tax ñu fal ñii dañ leen fal ngir projet donc déception waru fi mën a am six mois il fallait faire un diagnostic donc c'est extrêmement important de dire fan le projet bi ngay wax ni Sénégal 2050 jóge dafa jóge sur le projet bi nga xam ne ñu ngi koy togg depuis 2014 muy évoluer mu enrichir lors des élections présidentielles avec les projet de différents candidats de la coalition mu def beneen étape supplémentaire ay sénégalais ñoo ko liggéey boo ko xoolee ak différence am ak yeneen projet yi nga xam ne moo jóge feneen yëpp différence fondamentale bi ak le PSE mooy du fait c'est des ressources humaines de qualité du Sénégal des Sénégalais qui ont eu à travailler pour un projet de développement du Sénégal ñu jiital si lan le secteur privé le secteur privé bi def ci liggéey bu mucc ayib secteur privé boobu noonu permettez-moi de saluer euh, un grand monsieur ma dégg ça m'a fait mal quand j'ai entendu certaines langues xaw ko critiquer Euh, et puis on bien sûr dégg nañu lu ne un expert de ce type le Sénégal n'en compte pas dix boo ko amee danga koy garde da nga koy chérir danga koy jàppale danga nga koy taxaw mu mën la dimbale parce que liggéey bi dafa laaj ñu cascade ko je veux nommer Victor Gorom Ndiaye le DG euh, de Performance groupe euh, Group mm-hmm. euh, tey euh, nit yu mel noonu bëriwuñu ci wàllu xam-xam seen seen cursus académique kenn du ko lam-laame nga def HEC def Berkeley liggéey en tant que consultant arrêté consultance bi à trente quelque ans nga ne damay ñëw ñibbi si Sénégal fekk bi nga ñëwee le domaine du conseil c'était totalement en friche y avait rien nga défriché liggéey ba tey nekk pratiquement l'élite du conseil en Afrique en Afrique de l'Ouest en Afrique bay dem di liggéey ji tey sur des pays euh, européens ou sur le reste du monde c'est à saluer loolu mooy le Sénégal que nous voulons le Sénégal de demain sera un Sénégal de talent et de champion ñaari baat yooyu rek la mooy le projet le Sénégal sera un Sénégal de talent de champion champion économique de talent léegi nag talent boobu noonu il était où Victor il était au CIS donc mën nañ ne le club des investisseurs représente le privé national mmh. donc le privé national a travaillé sur ce document de référence mmh. paradigme bi mooy le développement c'était quelque chose boo xam ne on l'imaginait comme su fekkee ne dañ ko war a jël ñu jox ko euh, ay étranger mmh. mais bien joxuñu ko étranger dañ ne ñu développement bi ce sera fait par des Sénégalais pour des Sénégalais le privé national a participé le privé national va part va porter le développement parce que développement bi euh, tey jii nii boo wootee baatu souveraineté boo wootee baatu patriotisme on parle de patriotisme et de souveraineté économique mm de souveraineté alimentaire de souveraineté énergétique de souveraineté sur nos ressources mm -hmm. nos ressources extractives nos ressources minières et sur l'ensemble de nos euh, ressources vues connues à venir mhm. ak mm -hmm. de remaîtrise sur les ressources yi nga xam ne que par ailleurs on a eu à mhm. projet bi nag dafa wax lu simple c'est un pacte social un contrat social boo xamee ne que ne à horizon deux mille cinquante donc en vingt cinq ans nous voulons faire du Sénégal une nation souveraine juste et prospère ancrée sur des valeurs principal. fertes c'est le slogan principal mooy la vision permettez-moi juste de le corriger c'est la vision vision boobu on le matérialise comment euh, en phase clé phase yooyu da ngay ne d'abord day am benn phase bu mag boo xamee ne il va falloir redresser parce que réew mi dafa laaj ñu réformer lu bëri ñu réformer la presse ñu réformer euh, euh, la fiscalité ñu réformer le foncier ñu réformer la gestion du maritime la gestion de nos domaines ñu réformer les institutions et cetera et cetera. Mm. mu laaj beneen phase mooy phase 2 bi d'impulsion. qui va concerner un peu plus le master plan stratégique parce que mooy ñetti étapes yi nga xamee ne que moo am le plan quinquennal le master plan stratégique et après l'élaboration de la vision ak ay plan euh, quinquennal yoo xamee ne que dañuy succédé wu. Mm-hmm. boo jógee ci impulsion bi ba après nag nga am une phase d'accélération si yeneen temps yi mais projet boobu dafa am soubassement bu mag mooy dafa lalu d'abord sur la bonne gouvernance mm-hmm. bonne gouvernance bi nag da nga koy jëlee comme leitmotiv bi mooy jub jubal jubbanti. mu basé wu sur njiit yoo xamee ne que ne am nañu probité morale am nañu éthique wóolu nañ leen ndaxte seen loxo set na moo tax ma ni képp ku loxoom set nga nekk ci beneen parti bu mënti doon ak nga féetewu feneen ñëwal jàppale pouvoir bi parce que développement u Sénégal moo ñu ñor donc loolu mooy première base bi l'ancrage africain le panafricanisme ak une bonne gouvernance te bonne gouvernance kenn du ko wax te waxoo lutte contre la corruption te président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sa priorité des priorités wax na ko c'est de lutter sévèrement contre la corruption fexe ba nga xamee ne que ne corruption daf fiy jóge luubal daf fiy jóge sàcc daf fiy jóge dënk daf fiy jóge te mën nañ ko gëm mën nañ ko gëm te dina ko mettre en œuvre loolu mooy li ko laal beneen bi mooy euh, ci wàllu euh, aménagement du territoire ak une meilleure maîtrise urbain rural naka la ñuy rééquilibrer cette justice euh, ak cette compétitivité territoriale moo tax da ngay xool boo xoolee ci biir projet bi da ngay gis li ñu wax la mise en œuvre de huit pôles mhm. euh, territoire parce que Dakar rek mënatul euh, gàddu développement bi boo xoolee le poids des pôles or Dakar da ngay gis ni que ne 53 pour cent la Mm-hmm. alors que horizon plan bi daf ko bëgg a yóbbu ba 71 pour cent. Mm-hmm. mooy dëkk bi da ngay jàpp ne que ne ci horizon 2050 en 25 ans population bi dafay jógee 18 millions demi ji 39 millions. pauvreté bi nga xamee ne que moom lañ doon wax seuil de pauvreté bi ñu fexe ba nga xam ne 2 sur 5 boobu noonu dañuy mujj ba 10 pour cent seulement de la population ñooy vivre en dessous du seuil de pauvreté xam nga tey boo nee. nit ki da ko bëgg ci loo xamee ne mm-hmm. ko koo moom wala soo ko mënul baissé parce que xam nañ ne environnement bi ëllëg neexul nga ni njëg gi dina wàcc. Mhm. par contre la réalité mooy yow mën nga liggéey ba fexe koom bi yokku mooy tey boo xoolee le PIB par habitant au Sénégal il est de euh, mille six cent soixante soixante US dollars. horizon plan bi mooy dinañu àgg ji à minima à quatre mille cinq cent. ak indice quatre mille cinq cent ah oui l'IDH c'est mm, IDH rek boo ko jëlee comme valeur moo lay won niveau de développement d'un pays. Mm-hmm. tey on est classé cent soixante neuvième sur cent quatre vingt douze. Mm-hmm. Mm-hmm. objectif bi mooy fileeg euh, deux mille cinquante ñu mën a classé wu en moins de cent mooy jàpp nañ ne que ne plus de soixante dix places mën nañ ko gagner. sur des pays. mooy y a logique de compétition boo xamee ne que moo fi nekk tey avant boo dee da nga dénk sa développement administration rek fonctionnaire yi kese et cetera doo dégg des notions de performance de compétitivité de KPI de chiffre doo ko dégg alors que tey indicateurs yi mën naa jàpp ne que ne ñëpp xam nañu indicateur projet bi déjà te mm. soreeguñu ci vulgarisation bi mais dinañ ko gën a ba nga xam ne sénégalais bu nekk va se donner du sens pour mm-hmm. comprendre ne que ne ñii ñuy théoriser mooy wax li nga nar a def ba pare nga def loolu nga wax surtout c'est extrêmement important mettre en exergue parce que tey ñu bëri problème boobu lañ am parce que Sénégal c'est bien beau ku ñëw da ngay teg sa programme wax ko sénégalais yëpp adopté ko validé ko apprécié ko mais tey suñu demee ci dara lu dul réaliser ko bonjour les dégâts. c'est c'est extrêmement vrai parce que tey gis nañu ne bi ñu fi indee plan euh, PSE ñëpp dañ ne woon laa Sénégal ñun ñëpp Paris lañ nar a lañ nar a gis. donc dina neex dina xumb et que président Macky dafa waxoon ne day day ñëw sur le investir sur le capital humain mais on s'est rendu compte que nii li mu jaay ak li mu waxoon ba muy ñëw ak li mu jaay nit ñi c'est diamétralement opposé te tey yéen ñi nga xamante ni yéenay waa PASTEF wala boog coalition PASTEF wala parti PASTEF dañ koy nangu bu la neex. tey 54 yi leen fal daf ci am benn pourcentage de jeunes boo xam jeunesse boo xamante ni dañu doxe corps et âme pour que ngeen accéder au pouvoir. Mm-hmm. Mm-hmm. kon donc ñu leen di xaar ci côté euh, emploi des jeunes. Mm-hmm. xool nan ngeen di relever seen niveau de vie par rapport ak. conditions yi nga xam ne moom la ñuy nekkee parce que tey loolu bokk na ci les facteurs contre l'immigration clandestine mhm. te tey yooyu yëpp ñu ngi leen ciy xaar kon donc réalisation projet bi war na bokk ci li ngeen di gën a focus parce que comme yéen lu ñëw ngeen di nañu focus loolu aussi war ngeen ko <laughs> boole waale ci ci ci focus bi carrément. <laughs> <laughs> balaa ñuy jeexal si point point boobu. dama la ciy fekk si euh, je suis entièrement d'accord ak war euh, warning boobu nga def boo gisee en général. moi je suis à l'aise pour en parler euh, j'ai eu diriger des projets d'entreprise j'ai eu à diriger des projets yoo xam ne que ne mmh. dafa similaire boo bëggee ak lii def naa ko Sénégal def naa ko ci yeneen ci yeneen dëkk. projet bi gars yi nee na ñoo ko moom da ngeen da ngeen pla da ngeen koo sàcc ci. waaw bi génn nañ si méthode yi. waaw ah. bàyyi bàyyi leen ñoom ñuy wax noonu. rek ku nekk génn projet bi ci moom ngeen ko. sàcc waaw amul amul benn problème l' essentiel bu fekkee ne que bind nañ projet bu rafet te ñu ko en œuvre euh, Sénégal du si jëriñu du am na ku doon tooñ moo sax mu ne Gabon émergent mu ngi nii bind nañ ko <laughs> te échec la et cetera xam nga moom laa bëgg wax nga am projet ça veut pas dire que réussir nga. sàcc yomb na tamit. jël nga projet wolof naka la koy waxee euh, sàcc tama yomb na. wante sàcc nënd yomb na mais foo koy. foo koy tëggee mhm. ak noo koy tëggee ak ñan. Mhm. le premier facteur clé de succès d'un projet c'est les hommes et les femmes yi nga xamee ne que ñoo ko bokk ñoo ko seq mooy l'ensemble des parties prenantes après ak ñi nga xam ne ñoo koy piloter parties prenantes yi nag il faut ñu comprendre projet bi tey su ma la interroger woon mu tourner wax bi ma ne la yow PSE wax ma loo si jàpp. wax ma loo si retenir ana vision bi ndax xam nga sax vision bi am nga sax man wax naa la vision bi une nation souveraine juste et prospère ancrée dans des valeurs fortes mm-hmm. waaw Sénégal yëpp léegi xam nañ pratiquement boobu mais bu ma nee ana vision wu PS e, ku ko xam ana déclinaison bi ku ko xam ñaata temps la kan moo ko mën a wax un il faut donner du sens à ce projet et c'est ce qui est en train d'être fait ce projet il répond aux préoccupations des s maanaam suñuy métit problème li ñu dund moom lañ diagnostiqué en six sept mois boole ko ak li nga xamee ne que moom lañ jotoon a xalaat teg ko jël chiffre réalité bi nga xamee ne que ñoo fi nekk chiffre yi nga xam ne mooy dëgg bi mooy chiffre yu transparent yi moo tax exercice de transparence bi nga xamee ne que le premier ministre a eu le faire sur les comptes publics ñenn ñi jaaxle si ak dem ba koy wax ne que ne waaye mais même boo ko xamee sax même bu dee loolu non démenti bi jeex na léegi dañ koy wax waroo ko woon wax président nee na moom li mu non non dañ ko ne waroo ko woon wax ñëw na ne yi ñu génnee amul moom masuta luubal dara non dañ ko ne dañ ko ne warul woon wax moo tax ñu invité leen ci débat xam nga moo tax ma ni le débat public contradictoire boo ko andee ci dëkk mooy may nga ñaari leader comme ce qui passe aux États-Unis en France en Europe partout nit yi dañuy toog d'échanger et de permettre aux citoyens de comprendre et de mieux apprécier les projets des uns et des autres mhm. loolu exercice boobu foog ñu egg si c'est devenu une demande et une exigence mhm. ci local yi dinañ ko gis yi j'espère que dina am ay réponses yoo xamee ne que ne euh, dinañ ko am que politiciens yi dinañ takk seen courage dem si plateau yi nangu def débat yooyu noonu mhm. en plus haut lieu en tout cas notre candidat est prêt à, le faire je reviens sur pilotage des projets c'est extrêmement important un, pil un projet il est voué dès l'origine à l'échec mm-hmm. donc gis nga fii warning bi may joxe te yow nga joxe ko léegi nii mooy am na sax cet organe de gouvernance la il faut que projet bi chaque trois mois chaque six mois ñu def taxaw seetlu wax sénégalais yi ci domaine yi ñu waxoon ci KPI si ci indicateur clé yi ci mesure yi nga xamee ne que ne tey moom lañu teg fii nii voilà fi ñu si toll voilà li ñu si jot a réaliser voilà les actes concrets mm-hmm. loolu mooy tax nga mën a ancrer la légitimité bi nga xam ne mooy sénégalais yi dinañ continuer di gëm sa projet bi soo si communiqué wul soo waxul ci les premières réalisation li nga teg du ñu mën a gëm li ngay wax parce que dañu ne yow da nga def livre nii rek proposé nga ay idée mais mm-hmm. idées yi gisuñu nga koy regle mm-hmm. léegi nag réew boo nekkee di ko jiit am na loo xam ne c'est le quotidien lii lay lii xaw maatam lii xew Tamba lii xew feneen ak feneen day xew day continuer di xew mooy àdduna bee dëkkee noonu àdduna bee tëddee noonu loolu da ngay am noo koy réglé mais sa projet dara warul la ci teggi d'accord da nga ci war a sës te gis nga li ñuy wax focus noonu dañu war a focuser ci projet bi ba cinq ans yi jeex looy liggéey nga liggéey ko sénégalais yi dofuñu dina jàpp leen te xam nañu te dañuy ràññee boo liggéeyee li nga wax méngoo ak li nga newoon moom ngay def ci cappaandal ga bu fekkee ne résultat yaa ngi fi dañ lay fal moo tax man la l'opposition tey jii nii de Pastef ak de la coalition c'est la prise en charge des préoccupations et le fait de délivrer des résultats donc tellement le pilotage sera waxtaan waxtaanal ak Ousmane Sonko ci biir ses termes favoris da lay ne nous avons les yeux rivés sur les résultats le projet bi takk na locomotive bi départ na gare par gare station par station les résultats seront incha allah au rendez-vous. d'accord alors euh, euh, am na point bu ma bëgg ñëw nii rek. ñu ñëw ci dernier point bi. Mhm. mooy gis nañu ne Sénégal dafa am benn crise économique boo xam ne jot nañ ko génnee bi état des lieux bi amee. muy euh, ay chiffres yoo xam ne ba mu génnee ñun ñëpp jaaxle nañ wala ñenn ñi mhm. nañ. par rapport ak investisseurs yi. parce que ku ne xam na ni tey les finance publiques lu ci ëpp euh, projet public yi ñuy réaliser ci finance publique yi lañ koy jaarale. pour mun ko mettre en exergue. Mhm. te tey vu que note bi ñu Moody's envoyé. sortie bi FMI def par rapport ak gunge bi mu nar a gunge gunge gouvernement bi. Mhm. donc on se dit que y a une crise. Mhm. maintenant crise boobu tey naka la état bi mën a met defee la mainmise pour ñu mun ko gérer ba génn ci. est-ce que investisseurs yi dinañ nangu ñu investir. Mm-hmm. vu que chiffres yi fi yi ñu gis nii. Mm-hmm. xaw na jaaxal ñu bari. Mm-hmm. merci beaucoup pour la question euh, Lala euh, alors moi je me dis est-ce qu'on peut à proprement parler de crise moi je rappelle juste les engagements que nous avons pris par rapport au Sénégalais mm -hmm. c'est lu mënti xew dañuy wax dëgg jëfee dëgg te bu ñuy demit dëgg mooy mujj boo jëlee ci biir c'est pas pour rien ñu ne ancré sur la vision ancré sur des valeurs fortes ci valeur yooyu transparence daf ci am parce que c'est une exigence de transparence tey dañu toll ci dëkk bi foo xam ne sénégalais yi dañu ne nam mën nañu suñuy njiit ñu ñuy wax dëgg te ñu ñuy wax état wu koomu Sénégal fu mu toll niveau de maturité la tey sénégale yi dañoo gën a jàng génération bi dañoo gën a yeewu dañoo gën a xarañ ñu ngi ci réseau yi yow booy wax dara sax def ci attention parce que boo defoon nag ñoo la ko gën a xam wala rapidement dañ koy google xool ko wala jaar feneen ak feneen xam ko mën la ci wax. Mhm. léegi est-ce que da ngay découvrir dara nga def la politique de l'autruche nga ni damay sëgg ci loolu duma ko wax et je maquille les comptes déedéet. Macky Sall on lui laisse sa capacité de maquiller les comptes et de dire ce qu'il veut et de faire ce qu'il avec les chiffres moom Amadou Ba ak ay ñoñam et cetera fi nekkoon aux affaires les chiffres c'est un vrai scandale de que l'endettement d'un pays le déficit d'un nga publier des chiffres yoo xam ne ça ne correspond pas à la réalité c' est totalement travesti boo xoolee li ñuy wax ci wàllu déficit le déficit à 5 pour cent du PIB. Mmh. annoncé alors qu'en réalité il était à 10 muy le double. Mm-hmm. yow fenoon ndànk sax quoi. taux d'endettement bi mi ci 87 voilà donc peut-être chiffres yi sax nit ñi duñ ko xam mais tu leur dis globalement on est à euh, on déclare qu'on est à 13 milliards et quelques d'endettement alors qu'en à plus de quinze milliards six cent et quelques. mooy tu as omis presque rek plus de mille huit cent milliards yoo xamee ne que c' est comptabilisé. c' est c' est c' est ça a été utilisé mais on ne pas où. léegi impact bi nga xamee ne que moo ci am ñaar la impact politique on va sur des législatives est ce que ñiy def loolu war nañ leen bàyyi ñu jalaat encore continuer di piller nos ressources. Mm-hmm. continuer di ruiner l' état des ressources de ce pays là. moi je dis non. te képp koo xamee ne que yeewu nga ci xool nga nu mu demee bëggoo Sénégal tëddee ni loolu mooy le premier point sur l'impact politique le deuxième ben, l'impact c'est de se dire mais si tu ne déclares pas ça yow demain le rendez-vous que tu as avec tes bailleurs le rendez-vous que tu as avec le FMI que tu as avec les institutions de Bretton Woods que tu as avec la BAD que tu as avec tes propres banquiers etc dans ton pays en local il va être fait sur quelle base projet que tu veux faire pour le vingt cinq ans à venir sur les cinquante ans à venir il va être sur quelle base c'est pas sur la base de mensonges que l'on construit là je pense que le château des cartes il s'est totalement affaissé on a vu eux ce qu'ils étaient capables de faire moo tax politiku naxaate boobu politiku tappale boobu politiku fen boobu noonu dafa war a jeex ci Sénégal quitte à ce que mu dise Euh, keneen ak keneen beneen euh, tey jii ni agence de notation dégrader la note du Sénégal la note du Sénégal dégradée ma doo ko ressentir duma ko ressentir keneen du ko ressentir. Mhm. ñooñu développé wuñu dunduluñu tey le projet la c'est un projet boo xam ne il est extrêmement souverain et c'est un projet qui parle de développement pour demain basé tey sur des ressources endogènes et basé sur un développement totalement endogène. Mhm. dañu gëm suñu bopp ñu fonk suñu bopp dañuy dellu revisiter Majmout Diop ñi ko xamul ak les plus jeunes moo fi doon njëkk a woote gëm sa bopp ñu foog ne gëm sa bopp feneen lañ ko dëkkale tey déedéet nañ leen gëm suñu réew nañ leen fonk suñu réew ndaxte fii si réew mi yàlla may nañu koom bi nga xamee ne que moom la ñu war a defar sànq wax nga ko en introduction de manière brillante nee nga euh, dañu amoon industrie boo xamee ne que manufacturière ak benn industrie boo xam ne pratiquement inexistante lépp lu ñu amoon rek mooy exporté euh, nos matières premières sans les retravailler sur place sans les manufacturer sur place joxe produit fini duñ ko def mais loolu erreur bu mag la 60 ans noonu la ñu tëddee moo tax ba tey jii nii développement mënu fi am léegi da ngay gëm sa bopp nga ne yow produit yi fii nga koy finiree fii nga koy travailler fii nga koy defaree fii nga koy extraire fii ngay defaree matière brute boobu dootoo ko exporter noonu mm. engagement boobu boo ko jëlee ci lu mel ni ci wàllu engrais mooy ci aménagement du territoire. Mm -hmm. sur la partie pôle territoire nord. Mhm. da ngay densifier foofu noonu l' de l' engrais ak phosphate et nga fexe ba nga xamee ne que foofu nit yi dootuñu jóge foofu di dem waxu sax bitim réew wala dem Dakar sax duñ ko def mais foofu la ñuy parce que lépp moo leen di fa fekk ci. Mhm. loolu c' extrêmement important de se dire ne que ne euh, les de vérité les principes de transparence doivent guider mhm. le dis euh, socle bi premier axe projet bi mooy la bonne gouvernance donc bonne gouvernance boobu exercice de transparence bi si la bokk et dañ ko war a saluer maintenant nag koo xamee ne que dafa bëgg a persister ne les chiffres yi ngeen joxee si faux et cetera. mais nañ def nañ na accepter le débat public <laughs> dem foofu yóbbu ay chiffres am chiffre contre chiffre euh, projet contre projet nit yi waxtaan et puis on ira à <laughs> édifier les Sénégalais mais baal ma laal am na benn point boo xam ne waroon nañ ko ci wax. ce qui est extrêmement grave te man j'invite le PM le PR à ne pas bàyyi loolu mu sedd mooy ceux qui ont manipulé ces chiffres là il faut les traduire devant la justice parce que ils ont nui à l'image du Sénégal ils ont nui à la crédibilité du Sénégal et à la légitimité tey jii nii de ceux qui portent ce travail. Mhm. c'est des fonctionnaires yoo xamee ne que ne waruñu leen bàyyi en général de très hauts fonctionnaires ñoo xamee ne que ne ils mettent en cause les chiffres ils les remettent en cause ils trafiquent juste pour des ambitions politiques pour wane ne que ne mën nañu dem lépp encore plus lu ñu soxlawul wala maquiller chiffres wala des choses ce genre là loolu dafa romb loolu c'est des faux et faux en écriture et c'est sanctionné pénalement au Sénégal effectivement donc dañuy jeexal très rapidement à euh, président Alpha euh, donc euh, gis nañu li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu reddition des comptes tey bu ñu gisee le pôle parquet financier mu muy gérer loolu di ay nit on nous parle des deux dossiers supposés scandale la ñuy wax parce que benn bi ubbi nañ ci une information judiciaire muy l'affaire Onage beneen bi muy affaire Azer ñenn ñi ne bu fekkente ne dañu ne reddition des comptes pôle parquet financier bi ni muy woowee nit ñi ci gouvernement bu njëkk bi di leen laaj nan lañ yoree woon gestion bi war nañu leeral aussi ñaari mbir yooyu noonu aussi fan la dëgg ji féete ñu bëri ñu koy rappeler que ni mm. demagoole sept mois am na ñaari scandale mais on peut pas parler de scandale dañu ne supposé parce que comme mbir mi yoon mi ciy def liggéeyam nañu xaar fan la wanante di mujjee ki gëtam. mais en tout cas reddition des comptes la ñu wax et non règlement de compte. Mm -hmm. euh, moi je suis en phase je suis totalement en phase euh, dans la mesure on parle de séparation des pouvoirs moi je suis un orthodoxe de l'état de droit. Mhm. dama gëm état de droit. je milite pour les droits humains euh, dama gëm le respect de la constitution il euh, y un problème. il faut le soumettre à l'autorité judiciaire mmh. qui fera son travail. L'indépendance de la magistrature, ça doit pas être des vœux pieux. C'est pas pour l'opposition, c'est pas pour le pouvoir. Ak cas bu mënti nekk, mhm. il faut édifier les Sénégalais. Xam nga boo wootee jub jubal jubante. bu fekkee ne dafa am scandale wala dafa am loo xamee ne que présupposé bruit la wala yu xaw a mel noonu da ngay nangu li li ñu def mooy ne euh, Cheikh Dia va devoir répondre Euh, à la brigade de recherche. Mhm. et puis le travail suit son cours. su ñu waree auditionner le ministre war a auditer keneen ak keneen ils vont auditer donc il y a pas besoin de s'alarmer wala de wax ay supposé. d'ailleurs gis nañ Jean euh, Michel woon na woon na Thierno Alassane Sall. non loolu débat rek la ne ko na def débat su bëggee mais bu ñu amati nit yi en leur disant quelque chose boo xamee ne que ne c'est pas basé sur sur du vrai ay supposition présomption d'innocence dafa am dañuy gaaw yàq deru nit trop. nañu respecter nit yi ñu jox leen li ñu moom ñu nangul leen am nañ njaboot am na nañu yaay papa doom et cetera environnement fu ñu dëkk ñu bañ a tuumaal nit yi gratuitement pour rien du tout mm-hmm. la justice doit faire son travail en tout état de lieu gëm nañ ko je pense que nous tous on a regardé au Sénégal la vidéo assez impactante euh, du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi nga xamee ne que daf la ne képp ku toog ci sa bureau dans ton intimité yow ak yàlla dong mm-hmm. nga il y aura pas de solidarité gouvernementale. Mhm. duñ la si jàppale duñ la si dimbale. Mhm. il faut restaurer l'état de droit. il faut restaurer tey jii nii avec force je le dis encore une fois l'état de droit dans ce pays faire de sorte ne que ne zéro tolérance moo fi am sur la corruption je le dis bien une politique zéro tolérance sur la corruption. ça appauvrit l'Afrique ça appauvrit le Sénégal te dafa tardel dëkk yi donc nañu xeex xeex boobu noonu c'est un combat boo xamee ne que ne euh, ça mérite d'être porté pour la bonne gouvernance et mhm. il faut le faire jusqu'au bout euh, sur la reddition des comptes j'en viens la reddition des comptes est un des enjeux majeurs de cette élection législative faw ñu nangu bu ñu demee lii te nga xamee ne que moo fi xew depuis dix ans yi. muy yow jàllala muy man muy keneen sénégalais yëpp c'est une exigence dañu ne il faut ñu jaaree lii yoon pour édifier les gens. xam nga nekk géwélu président waaw mënul tax ñu ne la daggal nañ la deux hectares fii nii ci biir euh, ci biir aéroport bi. aywa ah déet man ku ku ci gis boppam rek exemple la euh, yeneen exemple ngi nii les fonds Covid est-ce que dañuy bàyyi mu sedd ni. mille milliards. mille milliards ba tey. ah ñooñu ñenn ñi da leen dégg ñu ne tekk ñenn ñi daw nañ ñenn ñi dem nañ mais foo mënti jóg nga luubal xaalisu Sénégal dinañ la dem jëli-jëli andi la fii nga layoo ko ak yoon opération guqi boobu fook mu am ci put lañ leen di jàpp bés biir yi bés loos yi ñu tegaat xaalis bi fii nii mu ci table bi warul dem warul ñu ko bàyyee noonu mm. loolu ñoom bu ñu ko deful dinañ leen si obligé ñu def ko parce que c'est une attente et c'est une exigence donc euh, il faut avoir pour que reddition des comptes bi am reddition des comptes dafa war a am pour ñu ne impunité nekkul régime nekkul mode de gouvernance Macky Sall moo ko waxoon j'ai mis sous le coude des dossiers sama conc laa jël teg ci ay dossier maa gën a xam li xew rapport yi génn na Cour des comptes wax na IGE wax na ñeneen ak ñeneen wax nañu mais maa jël sama conc teg ko ci dossiers yi waaw loolu kon mooy sàcc leen lu leen neex politiquer leen ko naa gañe naa fi toog naa wuti ji troisième mandat loolu la peuple bi ne du fi dal du fi am d'accord du fi am te léegi nag combat boobu foog ñu def ko ndaxte bu ñu ko deful xam nga qu'est-ce que ça veut dire. Mhm. c'est un mauvais signal pour ñi fi toog ça veut dire ñoom bu ñu doxalee noonu kenn du ci àddu. Mhm. te loolu ñun dañuy ànd mais ci àndu ngor la ñuy ànd. duñ ci d'accord te kenn du d'accord ci loolu. li ñëpp moom li ñëpp bokk nañu bàyyi mu nekk alalu ñëpp. Mhm. mais pas alalu kenn moo tax des politiciens euh, milliardaires sàcc alalu réew mi ñëw taxaw ne da ngay dem politiquer ko sénégalais yi dofuñu xam nañ ne que benn fonctionnaire fii mënul toog. cinq ans dix ans vingt ans ne milliardaire la maa ngi ay kër almadi maa ngi ay immeuble maa ngi lu kenn xamul fii euh, yow liggéeyoo ko amoo entreprise embauché wu benn nit créé wu benn valeur lépp ci sàcc rek. Mhm. mais dafay jeex sénégalais loolu la bañ loolu la bëggatul. te fii nii il faut confirmer ko loolu du jàll et on ne restera pas on laissera pas ça se faire. merci président en tout cas amoon nañ un pla réel plaisir dalal la. plaisir partagé euh, di la di bàyyi nga tàggatoo ak internautes yi ba beneen yoon nga wax sénégalais aussi foo lan mooy sa avenir ci politique bi. alhamdulilah da ngay resté continuer nekk allié Pastef wala lan lañ mën a jërëjëf Adja Lala euh, c'est un plaisir partagé euh, de vous retrouver d'échanger avec vous sur la vision 2050 d'échanger euh, sur euh, l'actualité euh, nous nous sommes des vigies de la politique sénégalaise nous faisons de la politique tey jii nii comme si c'est plus euh, quelque chose de sacerdotal, euh, mais non pas euh, une voie pour s'enrichir ou une voie pour Euh, nguuru wala affaire yu xaw a noonu déedéet ñu ngi sant yàlla bu baax. Mm-hmm. réew mi la ñu bëgg mu jëm kanam. Mm-hmm. réew mi la ñu bëgg mu développé wu. réew mi la ñu bëgg mu jóge position IDH 169e sur 192 dem bokk ji dans les 50 premiers pays de ce monde là réew mi la ñu bëgg mu nekk une puissance africaine. Mm-hmm. rendre le Sénégal grand. en faire tey jii nii une nation boo xamee ne que ne sur tous les plans dañuy révéler ses talents day créer ay champions économiques yoo xamee ne que dañuy joxe emploi créer de la valeur ajoutée réew mi tegu ci yoonu développement ci wàllu politique bi oui nous sommes et nous restons dans la coalition Diomaye président c'est bien ancré dedans te ñu ngi jàppale projet bi te ñu ngi ciy xeex mhm. ñu ngi ciy béy suñu waar te maa ngi woo sama mbokk yi nga xamee ne que ne ñu ngi euh, un partout que ce le Fouta wala ñu nekk dans la banlieue wala ñu ñu nekk à Tambacounda dans toute la région ma masawaat encore une fois bu baax a baax a baax suñu mbokk Bakel yi Euh, di masso aussi Tamba yëpp ah, parce que boo xoolee. ñun mhm. pôle territoire bi pour Tambacounda mooy tax Tamba développé wu demain. mooy loo xamee ne que ne dañu soxla train bi ñëw. Mhm. dañu soxla tali yi ñëw dañu soxla ndox bi ñëw. dañu mhm. soxla courant bi ñëw école yi ñëw. foofu c'est c'est c'est mooy pôle bi nga xamee ne que moom moom lañ gën a abandonné. te may lancer encore une fois euh, message bi euh, on a besoin d'un vrai plan Marshall pour cette région là. boobu moom c'était une oubliée pour l'histoire donc maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di la ci invitation bii nga ñu defal. merci beaucoup en tout cas amoon nañu un réel plaisir dalal ko mu nekkoon président Alpha Thiam je crois que tey yéen internautes yi doon seytaan di ko doon laajte gis ngeen ko échange yi mu def ak ñun si euh, suñu plateforme Sénégal 7 donc nii lay demee saa su nekk rester connecté dinañu ñëw toppal leen lépp loo xam ne actualité la en temps réel mais aussi euh, lépp loo xamante ni jëm na ci législative yi ñu jëm incha allah muy les élections anticipées de 2024 incha allah le 17 novembre euh, léegi mu tijji bu ko defee comme ni ko gars yi di waxee temps yi débat di de moo xew dinañ organiser ay des plateaux yu mag bu ko defee candidat yi yëpp ñëw toog ñu discuter ku ci nekk wax sa programme nag wax nit ñi fan ngeen jëmee réew mi mm. Mm. bu ko defee dinañ xam euh, ban carte moo baax ñu daal di leen di voter au soir du 17 euh, novembre 2024 mention spéciale à Khadija euh, bu borom butiful xeer moom moo jàpp ci coiffure bi ba mu xaw a yemb di jaajëfal laatim ISEC bu Pikine maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax étudiants yi di leen wax ngeen dem jàngi école tijji na bàyyi leen di war a jàngi inscrire dem toog seen kër yi dem leen jàngi donc Assane defal naa la appel message na gars yi ñëw jàngi si mention spéciale à la régie tonton Thiaw merci beaucoup Djili merci jëf ci coordination bi d'ici là portez-vous bien à très bientôt jërë ngeen jëf